ak Sall war nga ñoo dimbali lillahi wa rasuli faji sa ministre mythomane bi nga xam ne ba indépendance amee ba ba Sénégal amee indépendance ak léegi mosu ñoo gis ministre bu mel ne moom ci ay fen fen fenal fenal nag ku ne léegi Café Touba lay fenal kii moo feebar kii moom bay boo ay mbokkam jël ko faji ko kii yàq yàq na àddunaam de fenal nga góor si eh, góor yëpp fenal nga leen ñëpp tëj leen ci kaso léegi amutoo koo fenal Café Touba ngay fenal waa baax na baax na